sama jën man nga am sa jën ma am sama jën man nga am sa jën ma am sama binta mu sëriñ Saaliw nga am sa jën ma am sama jën man nga am sa jën ma am sama jën man soxna Ayda nga am sa jën ma am sama jën man ku nekk foog mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax dem mbégte ak contentement bu mag a mag ñëw teew fii ci biir Pikine ñëw teew ci biir ginnaaw raay mbokk yi tey micro bi am na koo xamante ni moo ko daan gàllankoor saa su ne Dakar Buzz social bu ñu leen ko waxee seen xel dem ci Fadel Niang Dakar Buzz tey nag ñoo ngi fii Pikine biir kër Fadel Niang Dakar Buzz li ko waral moom mooy. dafa am tudd yàlla daf ko jox gan fas yéene ko yàlla ak baaxam gan jigéen maanaam day tudd ci ngénte la ñu nekk tey bésu mbégte la moo waral tey ma teel ko micro pour ànd ak waa Dakar Buzz yëpp ak waa Dakar Buzz social ñëw xool lépp loo xamante ne xew na ci biir tudd bi tudd Fadel Niang Dakar Buzz incha allah mbokk yi ñu jox leen ko live ci kàttanu yàlla ak baaxam ngeen koos ko ndax Dakar Buzz beneen affaire la ci biir réew mi ba pare Fadel mel Dakar Buzz liggéey ci liggéey bu am solo ndax ci këm ju rafet mbaaxam yaram xolam bu yaatu partagé bi muy partagé ba àdduna gépp xam ko loolu dafa am solo sàkkoo lu dul ñu ñaanal ko te ñaanal ñu yàlla defal ko jàmm defal ko ci defal ko wér ganam gan gi ñu fi tax a daje nag muy doomam ji yàlla ko yàlla barkeel def ko mag mu am ñam ci barke yonent bi def ko magum diine magum islam maa ngi leen di bëggee bu a baax a baax ci biir Dakar Buzz social Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye na ko mais ni nga def ci tudd bi. waaw ah, sant rek xam nga tudd moom day tudd day tudd tudd moom ma tudd la rek. tudd la rek. mais tudd nga def waa waaw tudd rek xam nga. tuddoo da ngay génn. jour ouvrable la ñu bari sax mere nañ ma. mais boo ko boo ko yëglee jamono bi dafa xat dafa metti te temps bariwul. dexul ma ko nafi euh, bari wul moo tax su bari yëgulu ma leen ko xam naa ne sax dinañ ma mere mais nan comprendre xam ne tudd la rek yow xam nga man xam naa et mu tombé nag liggéey liggéeyu décembre yi ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi liggéey ci combat Balla Gaye bi ak social bi suñu bopp xaw a saturé ku ko yëgul rek ma baal xam ne sama xel ci yow jamono ma jàpp ak liggéey bi saturé ku dégg li xam ne sax damaa tooy tax du bëri ma ko mais tudd rek mbokk gi wuy si nañ la xarit wuy si na la dëkkandoo waaw susu yow yow moom jaal bu ma la gisee rek sama xel lu ma tëgg yaa ngi ci démb nga yëkkati lu bari jox ma waaye nag doonoo yàgg ndax koo xam ne yaa ñaani sa soxna mais yàlla ma xool ci yow mere ba loolu suñu borom la toujours ma ne ma ne ca loolu newul newu ma ca loolu moom si yàlla ko dogal loolu waaw loolu suñu a ko dogal loolu ne ma ne ca loolu newul newu ma ca loolu xam nga loolu kon tey démb la ba ñuy di bokk benn néeg du tey yàgg na te lépp rafet yàlla na sa jàmm yàgg jërëjëf dama lay bàyyi ci kanam tuuti ma jël mbokk gi pari dellu si waaw baax na si ngal gilil si daway bu ma jom malul boppam soxna jaara moo di bu day bis bi laagi tee maa jóg way si ngal gilil si daway bu ma jom malul boppam soxna jaara moo di bu day bis bi laagi tee maa jóg way si ngal gilil si daway bu ma jom malul boppam soxna jaara moo di bu day ba mi dellu si di feeñaat te yaramam bu sa baali bugeeyo kon bi ne fi ñu ne ñu ne kon xale bi tuddee nañ ko Ndeye Anta Sy te yaramam bi def waw ndaw bu sa baali bugeeyo kon bi ne fi tayi dun daw waaye yow nga dee way nga te forom nga dee foo nga te bu sa baali war naa ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam boole ko gundu gàddu ak xel boo mu di bi yar jóg leen na màggal borom baraxaan jóg leen màggal borom baraxaan jóg leen màggal borom baraxaan di rek bambay jaamam jam ci saa i rek baatil moo waral mu di bu xaadam soxna jaara yaa bënn géej bambulaat bu naan wal wal dëkkato si gan nu gumar bakku gan tubay bañawal soxna jaara yaa bënn géej mambulan bu naan walwal dëkkato si gan nu gumar bakku gan tubay bañawal bu defal taqa bu juune danu wal kindi woolu tata day xajul ci nen soxna jaara lan woolu mu la julli kuy wax baam ju waxal nga war a waaye booy wax ci Binta du ma ànd ak sama sago. nee bu ñuy wax ci Binta du ànd ak sagoom. damay nuyu nag sëñ Manirou Amar nee day nuyu sëñ Manirou Amar mii toog. nga xam ni sama jëmm ju xeebu ji moo tax mu bàyyi koo sori ji. nee na nga xam ni jëmmam moo tax mu koo fu ne ñëw toog. Amar maa ngi ñaan nga gudd fan lool. yàlla taxawu la yàlla sàmm la. yàlla taxawu la sàmm la ak sa barke maam Serigne Bamba. sëñ Manirou Amar di quelqu'un très social. nee na di quelqu'un très social muy sëñ Manirou Amar mii. sëñ Manirou social moo nu boole. nee na sëñ social moo nu boole. muy koo xam ne dafay bay yor ay nagu élevage saa bu ci récolté dara jël ko joxaat ko jaamu yàlla. nee na koo xameen day bay lu ci génn mu joxaat ko jaam yeeg talibé sëñ Bamba te bëggul kenn ku ko wax. nee bëggul kenn ku ko wax. mu waroon a oyof te diis te oyof lool. nee mu waroon diis oyof tol Amar maa ngi ñaan yàlla gudd sa fan. Amar nee day ñaan yàlla nga gudd fan. di des mooy yaa xam. nee na bi ci des mooy. nee day gërëm sunu xalifa Badara Ñang. moom li may wax du sunu du sunu nee du sunu taaw sunu baay la. boo gisee amuñu saga ci moom. nee boo gisee amuñu saga ci moom. ba muy dimbali sama yaay boobu ñun mënuñoo xëy am juróomi. nee ba muy dimbali seen waajur wu jigéen ñoom mënuñoo am juróomi dërëm. moo jiili mii nga ma ne ma jàngil métier. moo tax moo jiili mii nga xamante barki démb ba ni may rakka moom dañu ko bàyyile nee na amuñu dara. waaye jiili fi mu taxaw rek la Badara taxawee. nee na fi mu taxaw rek la Badara taxawee. su ma gërëmee jiili gërëm yana sunu xalifa. nee na bu gërëmee jiili gërëm yana sunu xalifa. ak waali gërëm naa njaali waali gépp. naa njaari waali gépp ci jigéen ñi ma jël jigéen ngërëm di tekk ci loxo may mun a ñang nee na mu jigéen ñi mu jël ngërëm di tekk ci loxo mbay mun a ñang ak nday ñang ak ñi mu àndal ak nday ñang ak ñi mu àndal nuyu Abdou Diop ak ki nga moom mooy ndongoloo nu nuyu Abdou Diop ak ki nga xam ne mooy ndongoloo mii to li tax bëgguma lim boo limee bàyyi nit nee na li tax bëgguta lim boo limee bàyyi nit te ñi fi ñëw ñëpp man ak bintaa leen fi indi nee ñi fi ñëw ñëpp moom ak binta moo leen fi indi waaye du nuyu kenn koo xam ne day kenn ci man nee di nuyu kenn koo xamante ni day kenn ci moom muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar si nee na muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar si muy toog nga xam ne amul jot nga xam ne amul jot nit ku ñàkk jot la. nit ku ñàkk jot la. waaye bàyyi na yitteem. waaye bàyyi na yitteem. ni ma faadal foo nekk ma fekk ni ma faadal foo ne dinaa la fa fekk. moom muy quelqu'un très social. di gërëm dégg daaj mi mu àndal. nee na di gërëm dégg daaj mi mu àndal. di nag Medoune Diouf mi nga xam ne ku ne xam na maa ngi moom. nee na ku gërëm Medoune mi nga xam ne ku ne xam na leen ñoom ñaar. muy borom impro nekk TFM. nee na muy borom impro nekk TFM. di sama mu am yéene nee na du xaritam lu mu am yéene na ko. soxnaam am na doom waaye da ko wan ginnaaw ne na soxnaam am na doom waaye da ko wan ginnaaw ni ko damay ñëw kon maa sant bu baax. nee mi ngi lay sant bu baax. nee na bokk yeeg bokkaat yi. di gërëm badaraam ak ñëpp rek. nee ne di gërëm badaraam ak ñëpp rek. sànq nag fi tax ma dugg. nee na fi tax ma dugg. mooy Binta. nee na Binta mii nga xam sunu suñu séeri la jëlal Binta yow yow yow jëlal ma Binta waxal. sama yaay ko gërëm dama koy ñaanal. nee na du gërëm yaayam ndeylaam da koy ñaanal yàlla.

Binta mooy sama piis. nee na Binta yaay piis bi. li tax ma ne mooy sama piis mooy. nee na li tax mu ni yaay piis bi. Binta bëgg na ma. Binta bëgg na ma. yërëm na ma li ma bëgg la bëgg lu mu bëggul bëgguma ko lu xam na maay kan bintaa ku ne xam ne liggéey bii ñu ne dafa sensible di tëdd quatre heures di matin di tëdd cinq heures kenn ku ne dina la bëgg te yàlla rek tax te doo xam lu mu lay bëgg nag waaye moom supporté na ko nee na faal maa ngi ñaan yàlla yàlla guddal sa yàlla bàyyi maag yow yàlla defal la jàmm yàlla bu kenn dox sama diggante ak yow ndég jigéen di woo ma ku ma xool daaw xool ma ren xam ne jigéen di woo ma waaye da ngaa doon baax yàlla na sa jàmm yàgg lii rek la doon seede li xaadim laam doon wax la doon dëggal tey sëriñ bi jëmm ji xew la tey day sunu rakk joo xam ni rakk ju nu gërëm la ñun dey dañ koy tiitaroo ñoo di magam de xaadim Mouhamed fadal mii dañu koy tiitaroo ndax lu baax li muy def ñu di ko dégg di ko sagoo di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel ko moom mën nañoo baax Fadel mii nag Fadel mii nag yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na yàlla dolli suturaam euh, man am na fu mu ma nee na man mii am na fu mu ma teg te foofu mu la teg nekkuma fa sax. tabaski gii paase. tabaski gii paase. dama ñëw ci yegsi ci kër ga. dama yegsi ci kër ga. bu ma yegsee ci kër gi. bu ma yegsee kër ga. gis xar muy yeewee. gis xar muy yeewee. sama doom bu jigéen bi mooy jëkkantoog man a jënd xar. nee na doomam bu jigéen bi di jëkkantoog moom ni moom mooy jëndi xar. bon ne ko moom xar mi. ne ko ku moom xar mi. mu ne ko faadal ñang moo la ko fi ñëw yeewal. nee na xam na ni am naam xar waaye dafa rafet mu defal ko ko. loole mu def yal na ko yàlla fay. nee na faadal moom duma ma ci wax waaye Binta mii moo ma jara wax moo tax ma wax. nee na Binta ñu ngi koy gërëm bu baax. ci muñal gi mu muñal faajal. ko ak ko. déggal ko ak bëgg ko. bëgg ay mbokkam. bëgg ay mbokkam. man lu ma nekk mi nee na moom mi lu mu nekk mi ngi ci. chaque ma jiili loo bëgg ma toggal la nee na da koy wax toujours ni koy waxal jiili loo bëgg ma toggal la ko añ. takk ko ba mu ñëw ba ci weeru koor yi moo ci mujj. nee na ba ci weeru koor dafa takk añ bu bari indi ko. kon nag maa sant di ko gërëm. nee na kon mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm. di ko uh, lu mu fi am yàlla ko yàlla. di ko ñaanal lépp lu mu am ci kër gi yàlla na barkeel. nee na tey moom du gërëm faadal binta lay gërëm. doomam yi mënuñu la yemale kenn ñoom ñëpp ci kër gi leen yaroo ci kër gi leen defee seen lépp ñu xale yu am yar xale yu bëgg seen nijaay xale yoo xam du siggi xool seen nijaay Fadel nag dafa yàgg ak ñun du suñ séddoo ba muy xale fii rek la xam waaye ba mu demee ba yàlla ma neen ko gan Fadel bàyyiwul kër gi Fadel mooy fay ndox mooy fay courant li ma noppal dafa bari

Canada Médou Ndour ku ñuy ger ci alal waaye bëgg na jàmbaar joo xam ne boo ko ca jaaree mën naa wàññi yëf muy Serigne Saliou Mbacké bu ma waxee mu ne ma Fadel dafa yaru ma ne ku nit lu mu mën a yor ci àdduna buy milliard ak lu mu mën a doon sama fu waaye boo amee ak taalu bi Serigne bëgg na la Fadel daa ànd ak taalu Fadel mën na am ku ne na dajale ku kon Fadel yàlla yàlla guddal soo fan yàlla yàlla taxawu leen mbir mi nag ñaan lañ koy mottalee bég nañu kii nga xam ne moom lañ doon tudd tey ñoo ngi ñaan ci darajey kër si Sy na nañu am bis boo xam ne bis bi ñu ne moom la ñuy muur muy sëyi yàlla na ko yàlla dogal yàlla bu laaj laajte melow baayam yàlla bu mu laajte melow yaayam yàlla bum mu jirim yàlla na am xel ak jom jamono ji nag ku fi jur du ñaanal ko ñaar yi na am jom na am xel ndax nit ñi ñàkk na nañu jom te nangootunoo liggéey te bëgg nañoo tedd te as gor am jom maanaam social li koy lal nga bir boo woote nit ñi jox la du dara lu dul personnalité gi nga am di dignité bi nga am boo ñàkkoon fayda da nga fi yëg koo xam ne nooyeetul da nga ko teg askan wi war a woote jox la kenn du la jox ndax danga ñàkk fayda waaye boo amee ful la am personnalité am fayda boo indee malaat teg ko ci penc mi gars yi danañ ko faj ndax sa personnalité xam nañ ne doo waxantu kon Fadel yàlla yàlla guddal sa fan. ne dañoo amoon dëj démb waaye ne sa bës bi ñor na leen de ne da nga leen a fonk bëgg leen ne boo ñëwee ne day bàyyi na fi ca biti ñëw ca ñoom di wax ak ñoom di def ak ñoom di jël sa alal di leen jox yàlla na nga yokk ba yëg ko ci barke yonent bi ñuy njaboot ñuy njëkk sa njaboot gi yàlla na dund aw la sa yaay nit ku baax la doxul sa diggante ak ñoom doxu too de noom day laam nee na wax tur balaa jóg dañ koy waxtaane waaye sa yaay génnewu la ci déedéet jël na fi rek ngeen teg ko seen kanam yal na leen yàlla fay ci barke yonente bi nee na loolu rek lala doon wax di ko seedeel mbooloom ak say bopp yow nag men saak dembaag waa leeg day celaw dégeen yow lu waay ci wax ci yow doyul nan Serigne Cissé yàlla na ko yàlla defal jàmm dafa am ñaari kàddu yu may wax ci jëmm ji bu ma bu am bu tooxewee ci mbooloo hmm. te waxuma ci moom du ma gor nit bu la defalee lu baax da koy wax faadal dafa def lu baax Fadal nit ku am ngor nit ku jullite nit ku am diine ku am lislaam faadal du jëw du wax lu ñaaw lu rafet rek lay wax Fadal lu rafet rek nga xam góor a bàyyi ma say mais nee na mu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di sa xarit di sa lépp sa diggante ak moom samedi ak dimanche sa bis doxul ci diggante bi moo ngi lay ñaanal yàlla gu ñu lekk dara sa ginnaaw mu ngi lay ñaanal sa diggante ak mbooloo mii Fadal lii nag moo lay war a dangaa war a góor góorgóorlu yow yaa war a góor góorgóorlu yaa war a am jom yaa war a gën a mën a takkaat sa sa liggéey te yàlla la ko yàlla defal ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. sama jën man nga am sa jën ma am sama jën man nga am sa jën ma am sama binta mu sëriñ Saaliw nga am sa jën ma am sama jën man nga am sa jën ma am sama jën man soxna Ayda nga am sa jën ma am sama jën man ku nekk foog seeni nelaw te dëkkee jox ma seeni alal ma far ko sant ki ko waral cheikh bi xamee borom ñi bingal ñu war ko sant naan ko njokka njale yaa tax nu fekke ay gita tal ko ma way la kon gaañi du ko tal ni ku way ma way ku noppi ma way noppi ma way man ku way ma way ku noppi ma way man goreel te xami kii la ku dem ba fàtte nag li la fal folli ko di ñëw di la dal abilay ku dem ba xam li ma xam man Cheikh bi ci jul nangu mbiram Cheikh Béthio ak bëggam ci sangam loola waral dafay dëkkandam Balla yaa jara